66 la mooy eene bi nga xam ne moom la sëriñ bi jàng léegi nga xam ne bàyyi ko bind eene ñaan yàlla comme ni mu ko waxee jegelu yàlla ci alquran ñaan yàlla Sénégal ñaanal l'islam ci Sénégal ñaanal jullit ñi ñaanal lépp lu baax li nga xam ne ñi ngi koy xeeñtu ak tim euh, dëggal euh, suñ jokkoo ak ah, loolu la fi bàyyi yàllaa ngi ñuy dimbale ba léegi boogu ñaan moom la sëriñ bi beesal ak lépp loo xam ne rek ajuna eh, ci xadara bi ci soxlaay xadara bi yàlla yombal ko ci barke alquran ji yàlla saxal ñu ci yoon wi nga xam ne moom la ñuy bàyyi bàyyee te jëlee ko ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi sant yàlla ñu ngi feddalitim taalibe yëpp ñi ñëw dëkk bi ñëw jàng kaamil yi ko niñ ko doon defee ko am gàntal ñëw tim te amuloo ngantal jàng alquran nga jàng ko foo mën nekk yónnee ko fii laj na baa ngi fii danañ ko bind allahuma salli ala sayyidina muhammad